بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na ko yàlla doot ci suñu kaw comme ni nga xamante ni moom lañ ko baaxoo di amal daje tey nag daje bi wuute na ak daje yi ni daan amee ndax ñu ngi ko gënoon a min ci weeru koor kon am na lu sabab daje bi euh, programme bi ni muy tëdd incha allah oustaz Makhtar Sarr moo ñuy defal waxtaan wi ci tomb bu am solo daanaka mën koo tënk ni ci ay jikko waxtaane te jikko yooyu du génn euh, Sayida Zeynab Fall rahmatullahi aleyha bala ñoo dugg ci tomb waxtaan yi incha allah danay jox suñu ustaaz Abu Bakrin Fay mu ubbil na jotaay bi ci alquran gannaaw ba ñu jox suñu ustaaz Mansour Samb mu ubbil na jotaay bi ci ñaan gannaaw ba ñu jox oustaz Makhtar mu ñëw ak ñun ci tomb waxtaan kon insha allah ñun ñëpp ñu ànd déglu fa ida quri al quranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun kon oustaz aw bakrin bàyyi laaj micro bi insha allah bismillah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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun mu nekk royukaay jigéen ñi nekk di sëy roy ci moom ba na mu amee ngërëm ak waajuram ak boroom këram soxna yi fexe am loolu bismillah aoudu billahi min alsheytan irajim bismillahi rahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin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 du génn ci ay jikko man nga wax du génn dëggu ak mbokkoo ak joxe ci yoonu yàlla makaanatu siddiqi wal uxuwa wal infaaq fi ñépp rek ñu ànd teewlu déglu Oustaz Makhtar lim ñu war a andil xëy na li ñu gënoon a miin moom Oustaz Makhtar musaana toog am na jeneen jëmm yu daan gis ci wetam waaye yàlla def ab dogalam ci moom te ñu nangu ko bu wér nag bis dana ñëw ku ci nekk ci ñun ñu ne naaj na wala guddi na ni ñu toog léegi defal ko ñaan di ko fàttaliku bis dana ñëw kenn ci ñun bala ñoo tàmbali nan defal diw ñaan yàlla na yeex kon incha allah ñu bàyyi kàddu gi Oustaz Makhtar ñu jox ko nopp yi ak xel yi dara bañ feb bi te ñu pare pour jëfe yi muy wax keroog ba mu coupé la pare ci kóllëre gam ne la dañoo bëgg ñu fasante danañu gise te benn ngant jàpp ko pour ngeen gise benn ngant jàppaatu ko pour mu woo la waaye daal neex na ko rek mu yëkkati téléphone woo oustaz Muaz ne ko dama bëgg ñu fasante kóllëre woo maam ne ko dama bëgg ñu fasante kóllëre te du ca sàmm dara nabi nee na ku mel noonu nee na koo ko amul diine mbokk yi képp ku matal li nga dëxalanteeg yàlla ci kóllëreeg lu ca aju lu gën a yaatu loolu sunu borom tàgg na ñooñu de daf ne yenent bi sallallahu alayhi wa min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziya allahu sadiqina bi sidqihim wa yuaddiba almunafiqina in shaa aw yatuuba alayhim na am na ci ñi nga xam ne dañoo engagement ci soppi pour waram am na ci ñoo xam ne engagement ba ñu jëloon sàmmoonte nañ ak fa minhum man qadaana am na koo xam ne la mu waxante woon ak Zeynab ne ko dama la sopp te yàlla tax ba léegi ci la nekk tëju sadaqu maa ahadullah alayhi wa minhum man xadaa naxba waaye wa minhum man yantadir am na ñoo xam ne dafa am lu leen téye moo tax ñëwaguñu waaye la ñu waxoon dañuy wa ma baddalu tabdila am na koo xam ne nii làqatuwul gannaaw walal attention am na ñoo xam ne maam Fatou Mbeng xamu leen woon béy na ba leen te dañ ñëwoon Zeynab dañoo ànd ak yow ci yàlla ñooñu faratale ñu ñëw fee ñu maam Faatu Mbeng ci soppe yi ndax Zeynab dem na mais liggéeyu Zeynab mu ngi li yajziya Allahu saadiqiina bi sidqihi nee na ñooñu nga xam ne rasuwunu làqatuwunu dawunu delluwunu ginnaaw engagement ba ñu jëloon démb 2010 ak Zeynab tey 2019 tey lañ ko gën a dëgëral yàlla mu ne ñooñu danaa leen fay mu ne ñu nekk ci yoon bi nag maa leen di xaar heure bu ñu ñëwee ma jox leen seen fay waaye nag nee na naafeq yi dana am ci seen biir de nee na ñooñu maa ngi leen dencal ay duma yàlla buñ bokk ci naafeq yi mbokk yi woor ak seet ci kóllëre ci bàkkaar yu mag yi la bokk boo demee ci alkabair bu imaamu dahabi mi ngi boole woor ci ñeent fukkeelu bàkkaar ak juróom ci bàkkaar yu mag yi te ci la ko boole ibnu xajar ne ñu boole ko ci biir bàkkaar yi mag yi moo gën a yey ci ñu bari ci boroom xam-xam yi ne fecc kóllëre ci bàkkaar yu mag yi la bokk fi ñuy kalaase bokkaale ak yàlla di fa kalaase njabar di fa kalaase rey nit di fa kalaase xas gor foofu la kalaase taraay yi inna charra dawaabi inda allahi alladina kafaru wa hum laa yuminuun alladina aahadta minhum summa yanquduuna ahdahum fi kulli marratin wa hum laa yattaquun ñi gën a yées ci ñuy dugg ci kaw suuf suñu borom nee na mooy ñi gëmul yàlla mel na dañu ko yàlla ñooñu mooy ñan mu ne ko mooy ñi nga xam ne yow dañoo ñëw jaayanteeg yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fasanteeg yow kóllëre ba noppi teg ci kóllëre nga may leen chance pour ñu dikkaat ñu dikkaat nga delluwaat leen confiance ñu fasantewaat ak yow xul rek ba noppi fecciwaat kuy wër kuy yées jàppal ko. mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax ci loolu point bi ñuy jeexalee ndax sunu waxtoo ngi jeex gannaaw mbokkoo ci yàlla. wala sax point boobu du jeex ñu toog ci tuuti mooy soppante te yàlla mbokk yi lu am solo ànd te yàlla tax xaritoo te yàlla tax sunu borom nee na alaa xilaahu yawma idin baaduhum li baadin aduwun illa almuttaqin bëri na xarit yoo xam ne ëllëg yowmal qiyaam ay noon lañuy ñuy doon ba mu des ñu xarito woon te yàlla tax képp koo àndal ci àdduna ngeen di jayante di tàggante di ragalante ginnaaw waxantewu leen dëgg wanantewu leen dëgg àndu ci dëgg ëllëg yowmal xiyaam ay noon ngeen di doon wa yowma yaaddu ala ala yaday yaqulu yaa laytani ittaxastu maa rasuli sabila yaa waylata laytani lam ataxid fulanan xalila kooku ne laqad adallani an dikri baada is jaani allahu akbar ëllëg yowmal xiyaam ëllëg yowmal xiyaam nee na nit dana matt loxoom wiccax naan maa rëccu li ma xamee diw bu démb doon tey damay seeti jigéen ju sell ju yiw ju mel ni Zeyna Fall ma ànd ak moom ci yàlla ndax diw mi ma àndal moo ma sànq moo ma réeral moo ma wanul dëgg moo ma wan yoonu caaxaan ba tey ma jubóog seytaane réeroog yàlla ku daan julli laa waaye bi ma àndeek moom laa bàyyi julli ku yiwoon laa waaye bi ma ànd ak moom laa yiwa di daan naa teg kool sama bopp bi waaye bi ma àndeek moom laa mureeku ay waay bu doon démb ma ànd ak Zeyna Fall ndax kol ga ma tegoon sama bopp day yokk mais du wàññeeku bu ma teguloon kol sama bopp mu teg kol ci sama bopp ñaata jigéen a fi teew tey bu ñu muuroo Zeyna Fall moo ko waral kooku de ëllëg du màtt loxoom naan rëccu naa li ma doon àndeeg Zeyna Fall kan moo fi réccu lim xamee woon Déna Fall ci am na ci mbooloo am na ku ko réccu waaye wax leen ak man am na ku ko réccu mbokk yi loolu mooy ànd ci yàlla te loolu dañoo rek am yaakaar ba ëllëg yomal xiyam kenn du taxaw poñe wanteeg Zeynab ca kanamu yàlla naan ko lu tee wanoo moo woon dëgg Déna Fall de mucc na ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax wax na dëgg wane na dëgg jëf na dëgg yàlla suturaal na ko mu nekk ca dëgg ja ba wuy ju borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na toogandoo ku baax ak toogandoo ku bon nii la mel toogandoo ku bon daa mel ni nga toogandoo tëgg bi nga xam ne moo yor weñ dugal ko ci safara sa di ëpp sa sa di jub nee na boo toogee moom bu lakkut sa yére sa xër sa sonal la waaye mu ne toogandoo ku baax daa mel ni nga toogandoo jaaykatu parfum su la takkalul parfum tamit xet ga di la xee nee na loolu mooy misaalum toogandoo ku baax ak toogandoo ku baax yonent bi ne almaru ala diini xalilihi fal yandur ahadukum man yuxaalil kenn ku nekk xaritam ba muy àndal moom lay roy ci jikkoom moom lay jël diineem kon nanga xool kan ngay xaritool koo bañ a mel ni moom bul ko ko rekat keroog dañoo def émission ba génn ci tele bi am benn caméraman bu ñu taxawal ci bunt bi maam Fatou Mbeng di génn rek mu téye mu téye dënnam jàpp kim dendal ñu ne ko lan la mu ne ndaw si bi muy génn wallaahi dama tegoon ne Zeyna mooy génn ci télé bi ma ne ko moo jiite soppee soppeem lan moo ko may bi mu génnee ñu koy jaawaleeg Zeynab mooy jaxasoo gi mu jaxasoo woon ak moom nabi nee na koo bañ a mel ni moom bul jaxasoog moom gars yi jaxasoog football yi dañuy niroog football kat yi ñu jaxasoog mbërum làmb yi ñuy wat seen bopp yeek a tent léegi ñu tàmbalee wat seen bopp yi di tent ñu jaxasoog woykat yu jigéen yi def benn loxo ñoom it ñu ngi def benn loxo mbagg aawut yi ñu jaxasoog ñi takk benn jaaro ñoom it ñu ngi takk benn jaaro waaye ñi jaxasoog ndey faatu faal jaxasoog Zeyna faal ñi ngi muuru ok loolu moom réalité bi moo ko dëggal moom Aliou moo tax mu daan wax ne jahli wa iyaaka iyaa wa iyaa fa kam min jaahilin ardaa xaliman xiina aaxaa yuqaasu almaru ida ma huwa maasha wa lilqalbi ala alqalbi dalilun xiina yalqaa mu ne nit day copier moromam seetal ki ngay àndal boo bañee copier ki ngay ànd rek bul bul ànd ak moom anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqaarani yaqtadi ida kunta fi qawmin fa saaxib xiyaarahum wala tasxabil arda fa tarda maar radi bu laaj nit ki mooy kan mais laajal ñi muy àndal mooy ñaan ndax kuy ànd ku nekk ka ne boo nekkee ci biir dëkk seetal yu baax ñi nga def leen xarit nee na boo seetee ñu yées ñi nga def leen xarit léegi nga yées mbokk yi sunu waxtu jeex na waaye nañu bëggante rek te yàlla tax nañu soppante te yàlla tax Omar ibnul xataa moo nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom tabaraka wa taala am na jaam ñoo xam ne ëllëg yomal xiyaam du ñuy ambiya du ñuy suhada waaye ambiya wu yeeg suhada yi dañ leen di ñëwee ñu ne ko yeneen bi tey nga ñoo misaal ñooñu ñooy ñan mu ne hum qawmun taxaabu bi ruuxillaahi aw nit lañ yoo xam ne dañoo jëm dañoo bëggante te jëm yàlla ji dong ta mu ne ala gayri arxamin baynahum nekkul ne dañoo bokk mbokk di dajee tour de famille tey tour de famille amul de ba tax ñu dajee fi de waa faaleen ayewuñ waa njóobeen ayewuñu de waa mbengeen ayewuñu de ala gayri arxaamin baynahum ak lan wala amwaalin yataatawnaha du alal ju ñuy joxante moo tax ñu dajee fa yonent bi sallallahu alayhi nee na ñooñu ëllëg fa wallaahi daf ko waat de maa ngi waat ci yàlla inna wujuhuhum la nuurun seen kanam ya day fees ak leer wa innahum ala nuurin dañuy nekk ci kaw leer laa yaxaafuuna ida xaafa nnaas bu nit ñi dee ragal ñoom dañu ragal wala yaxdanuuna ida xazina nnaas bu nit ñi dee jàq ëllëg yowm alqiyaam ñooñu duñu jàq mu jàng ne allah inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun mbokk yi bëggante bi bu dëggoo ñun ñëpp ñu nekk waliyu yàlla bëggante bi bu dëggoo ñun ñëpp ñu nekk ay waliyu yàlla te ëllëg yowmal qiyaam yàlla dana tegal pojom ñi soppante woon ci yàlla pojomu leer ñun ñëpp unanimité ànd nañu yëkkatiwaat loxo ba ñu jaayante woon ak Zeyna jaayantekook jigéen ju tedd ju sell ji di maam Faatu Mbeng di la wax ne boo ne wow na ne koŋ boo ne ñuul na ñu ne kukk boo ne tooy na ne xepp ndax yaa ko liggéey yaa ko wone yaa ko jëf yaa ko dox yaa ko wax ñépp a ngi àndandoo di jaayanteeg yow dëgg la ci yéen wala dëggul ci yéen leen seen loxo ku dëgg ci ku mu dëggu ci moom kon unanimité ànd nañu jaayantewaat ak yow di la wax ne du ñu reculer du ñu dellu ginnaaw insha allahu taala feek maam faatu la feek maam faatu la feek maam faatu la ah waaw moo tax may wax feek maam faatu la xam nga li tax ñuy wax baat boobu noonu la Zeynab moo ne bu dul maam faatu ma tas soppe yi laataa muy faatu am nay seede alfa mu ngi noonu keroog wax na ko moom itamit ca jataay ba lan moo ko mayee nag jikkoom la wala nag mu dem ba mu la nga seet ku la koo doyloo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 ci tomb waxtaan wi ñu fàttali rek ni mu ngi doon waxtaana ci makaanatu siddiqi wal uxuwati wal infaaqi fi sabilillah aw fi lislaam euh, tomb waxtaan wi yaatu na yaatu goo xamante ne bu ci nekk rek doyoon na tem maanaam bu jëloon as siddiq rek waxtaan ci doyoon na mu jëloon al uxuwa muy mbokkoo ci yoonu yàlla doyoon na bu jëloon al infaq fi islam doyoon na waaye bu ci nekk ah, laal na ci tuuti xëy na ñu tudde al infaq àggu ca ndax temps bu xat kon yal na yàlla fay ko dëgëral ko li muy mën a jariñoo ci waxtaane rek mooy dafa am ku ñu àndaloon di liggéeyandoo ak moom borom bi tabaraka wa taala jëfe coobareem ci moom ñu jógaat feddaliwaat suñu laxasaay pour feddali kóllëre pour mottali mission bi nga xamante ni si moom la yéene woon tilka ko qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum kon dafay nekkoon di liggéey dem na la mu jëf moo ko moom yéen itam li ngeen jëf yéen a moom tey nag fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkaasibin yàlla dana xam dana ràññee séparé ñi nga xamante ñoo dëgg woon ci ànd gi nga xamante ni moom la ñu àndoon ak Zeynab yàlla dana ràññee séparé xam ñi nga xamante ni woon riirandoo rek moo leen yóbbu woon euh, borom bi tabaaraka wa tagg na ci alxuraan jigéen ci wàllu dëggu mal masiixu bnu maryam illa rasulun qad xalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kooku jigéen la ci yàlla tagg jigéen jooju yàlla tagg nag xëy na bu ñu bëggee mel ni moom faw ñu teg tànk fa mu tegoon tànk kon ñun ñépp nañ góorgóorlu ci jëfandikoo loolu ndax wéeruwaay moom yàlla da day sëkk keneen koy wéeru rek dana daanu wa tawakkal ala alxayi alladi laa yamuut yàlla mu ne booy wéeru na nga wéeru ci ki nga xamante ni si day dund te du dee kon am na kuy dund te day dee yàlla nag dafa condamné à mort doomu aadama yépp Zeynab mii ki la bokkoon feeñ na ci moom ndax kullu shay'in haalikun illaa wajha lépp loo gis rek dana alku dana faatu ba mu des jëmmi borom bi tabaraka wa kon ñu gën a góorgóorlu gën a jàppaat gën a feddaliwaat suñu laxasaay gën a ànd gën a doolelente gën a suturalente ndax loolu noonu mooy li nga xamante ne Zeynab moom la daan waxtaane kàddu gii ma yor gannaaw bu oustaz Maxtaar Musaana waxtaan ba pare moom moo ko daan yor tey nag néew fi wuutu nañ ko ëllëg keneen dañuy wuutu rek mbir mu wuutu wante la yàlla na wuutin wu rafet yàlla na wuutin wu rafet yàlla na wuutin rafet xëy na du ñu mën a guddal incha allah euh, danay jox kuréel gi nga xamante ni ma leen tuddee ànd sàmm jikko yi li fi oustaz Maxtaar doon waxtaan ay jikko la waaye am na geneen kuréel goom dañuy jóg pour sàmm jikko yooyu pour mu mën a sax ci doomu aadama yi day leen jox kàddu buñ paree itam danañ jox suñu yaay xarijatu sa noxo moom it kàddu gannaaw loolu itam am na ay carte barkeelu yu ñu doon jaay ba léegi ñu ngi koy jaay ñu ngi ko doon jaayee 1000 francs waaye léegi wàññi nañ ko ñu ngi koy jaayee 500. 1000 francs la doon jar jombul am na ñu jëndoon mille francs lañ jënde mais wàcc na léegi ba 500 waaye ka jënde 1000 francs ka jënde 500 ñëpp ñu ngi leen ci gërëm gannaaw loolu itam am na ay carte membre yu ñuy jaay képp koo xam bëgg ngaa bokk ci mbooloo mi bëgg ngaa liggéeyal daara bëgg ngaa liggéeyal Zeynab carte membre yi mu ngi jaay benn mille francs lay jar benn 2000 francs lay jar carte barkeelu mooy jar benn 500 gannaaw bi mu doon jël 1000 francs ay soppeem yi tamit xam naa ni ku leen xam mbaa nga jaxasoog ñoom it ca loola rek nga leen di xal sa te fekk ndax moo toll noonu waxtaan dikk na ci waxtaan yu soxlawul may delsi ci wet googu waaye message bi nga xam ni moom lañu ñu bëggoon a jot li mooy ginnaaw bi ñu sante yàlla ci tey ñii ñu fekk ñu teew fi ñu gis ni jigéen ñi ñoo ci gën a am taxawaay loolu dafa dalal suñu xel daf ñu rassuré yi tamit ndax bu ñu waroon àdduna tey mbooleem ñépp d'accord nañ ci dëgg la naam ñoo ngi naan famille la waaye ki téye société ba société mën a taxaw jigéen la dafa am benn boroom xam-xam dafa wax ni ñu koy wax Michelet dafa wax ni tout femme est une école et c'est d'elle que nous prenions vraiment tout nos croyances nee na jigéen ju nekk daara la waaye pas-pas yi nuy am ñun góor ñi ak ngëm-ngëm yi nuy am sax ñoo ngi koy nampe ci jigéen ñi ba tax na suñu amee jotaay bu mel nii fekk fi jigéen ñi taxaw fi taxawaay bu mel nii loolu ñun daf ñuy rassure ci combat bi ñuy mëne du doon combat boo xam ni combat perdu d'avance la déet ndax benn jigéen rek mën naa soppi àdduna benn jigéen waxuma laa nag mbooloo mu toll nii xajuñu ci dara li ko waral mooy lu sotti yàlla la wax mu yegg sax yàlla la neex kàddu gi su daanoo yàlla la neex waaye am na ku téye micro ba tàyyi te yëggale ko dañ koy fabe fam toog jóg dem fi barab ak yi loolu kon ku mën a dara mu sotti loolu yàlla la soog ba tax na lay wi suñu boroom soxla lay wi mu soxla pour dimbali ñoñam jigéen ju taxaw pas-pas ba wér borom bi dana ko dimbali ba tax na lii daf ñu rasure te ñu xamit ni bu ñu daal di tëdd réew mi am na dëgg-dëgg ay défi yu fi nekk ay défi yu rëy yoo xam ne interpellé nañu bërki démb le 31 décembre ndangaan sàmb maa ngi jokkoog ñoom léegi am fa tubaab yu fa ñëw nee nañ installé nañ fa ay hôtel jën nañ fa kër jël sunu ay jarbaat sunu ay doom daanaka futti leen bañ def yaram mu neen fanaane noo di leen défilé loo ndax lan ay miettes ay vingt mille francs trente mille cinquante mille est-ce que dana ci yegg sax est-ce que dana ci yegg sax waaye ñoo ngi leen di saytu loolu ñoo nga koy topp yi tamit war ko lijjanti ndax pénc mi ñun ñoo ko moom penc mii ñun ñoo ko moom te dañu ko war a taxawu ba li ñu fi fekk ci ak mbaax buñ ko yokkul it ñu sauvegarder ko ndax bu ñu fàttee mukk ni ki yàlla yónni ci ñépp muy alayhi salaatu wasalaam li mu wax mooy dañu ko yabal dañu ko yónni ngir mu mottali xeeti jikko yu rafet yi te bi mu yeggalee liggéeyam ba noppit borom bi nga xam ni mooy sanctionné tout œuvre yàlla moo koy sanctionné positivement wala négativement yàlla mi ngi ko sanctionné ci jikko kese sanctionné wu ko ci ay station daraja ak i maqaama sanctionné wu ko ci xam-xam sanctionné wu ko ci mën a julli wala mën a woor waaye ci jikko la ko sanctionné kon ndeke mbir mi jikko ci la bokk wa innaka la ala xuluqin jikko ci la bokk ba tax na yàlla na ci ñu taxawu jikko yi ci penc mi te loolu mënta sotti te jigéen ñi taxawuñ ci mënul nekk mënul nekk ba tax na ñun bërki démb tribunal la ñu yendu man ak euh, professeur Cheikh Omar Diagne ci même lancé boobu yi tamit agresseurs yi ñoo ngi agressé ba tey ndax yàq dafa gën a yomb yàq dafa gën a yomb rawatina contexte bu particulier bi ñu nekk muy au moins ñetti yëf fees na fi muy contexte de grands ensembles nit ñi nga xam ni bokkuñu ngëm-ngëm sax ñoo ngi doolelente ñi bokkul ngëm-ngëm sax ñoo ngi doolelente da nga gis sioniste ànd ak koo xam ni gëmul loolu ànd ak communiste ñu boole xeex lislam ak jullit ñi te ñun inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsus yàlla sopp na ñi nga xam ni ñoo ngi ci ab toolam di bay aka di ca def ay effort ak di ca xeex ba noppi jàppaloo ni ay mool yu ñu taqale gis nga image bi borom bi joxe tey kër yi kenn dootul wax brique yi dañ naan kër gi lañuy wax wala tabax bi parce que kenn ku ci nekk noonu ngaa fond sa morom def sacrifice taxawal dara loolu kon ci ñun la gën a yelle te yaakaar naa ni jigéen ñi ñooñu ci gën a mën a jàppale kon ñu nekk ci ère des grands ensembles nekk ci ère boo xam ni communication mi ngi demee noonu loo jàmbaare jàmbaare loo góor góorgóorlu mën ngaa dem taxawal sa daara jël sa njaboot yor sa jël jàngalekat yi gën a mag ñu nekk ca biir dongo daara yi boo fatee fatoo tëdd sa néeg ñu dem Sydney dem New York dem New Delhi dem Paris dem Pékin dellusiwaat ñëw te duñ génn kër gi parce que ñun contexte bu particulier boobu ci lañ nekk moo tax may wax ni ñun jullit ñi war nañu relever aussi suñu niveau xam-xam parce que ni maam ya doon doxalee ñun suñ ko doxalee à coup da doon échouer à coup sûr nañu doxale woon ñun suñ ko doxalee dana échoué parce que bokkuñu ay défis yu ñu interpellé tey sa kër ngay toog tëj ko sañ njaboot la ko yàq mi ngi ci biir kër gi te loolu amul woon il faudrait que kon élément boobu ñu jël ko en compte te jigéen ñi ñooñu ci gën a mën a li beneen bi ci des yi tamit ci lay daane leen ndax li ñu interpellé dafa bari mooy nañuy veiller ci njaboot gi ci biir kër gi surtout parce que ñiy génn ci mbedd mi ñëpp kenn ku ci nekk ci kër nga bàyyi ko ku ñu gis ci mbedd mi ak comportement ak lu mu fa mën a ëndaale nañu xam ni tëbewul ci asamaan si jékki-jékkiwul aussi génn ci suuf si ci kër yi lañ bàyyi ko te biir kër yi dafa am kilifa goo xam ni daf ma nettali lu yéeme daf ma wax ni ma en wala 91 bi mu yëgee ni dafa am film bu ñu fi waroon indi muy dynastie nee na dafa jël dàllam dem ci El Hadj Abdou Aziz baax mu baax ma nga xam ne ñoo ngi koy jooy ba tey dem ci sëñ Saliou dem ci kilifa yi nekkoon ci réew mi yëpp nee na fexe ñaan audience gisee ak président de la république Abdou Diouf ni ko gis naa film boo xam ni bis bu ñu ko tegee Sénégal njaboot gépp dana yàqu nee na mu jalal ma ma jël risque bu nekk. jaral ma ma dox jéego yu ne waaye yàlla dogal film bi jàll comme lettre à la poste nee na ñu seetaan ko ma am lu ma naqari trop nee na 97 ma toogaat sama même salon nee na le même film ñu dawalaat ko ma seetaan ko ba mu jeex te gisuma lu ma ci naqari kilifa gu mag ci réew mi moo ma nettali lii nee na ma ci laa yëge ni am na lu ma ñàkk ci diggante bi maa xamul lan la voilà en li nuy wax guerre tranquille arme silencieuse ñun ci contexte boobu lañu nekk contexte bi ñu nekk nekkatul contexte mokkal alxuraan kese ak tari ay aaya déedéet gis nga toolub xare bi fi mu ne sax nit ñi xamuñu ko toolu xare bi te walakum fil ard mustaqarrun wa mataahun ila xiinin kon c'est un combat perpétuel defi yi interpellé woon na kilifa yu mag yi ñun yeneen défi moo ñu interpellé te moo gën a sew loolu nag ñoo ngi ci yaakaar soxna yii ci xam ni ñoom bu fekkente ni formation bi mate na ko ñoom seen taxawaay seen ngor ak seen jom mate na ko te waxtu ci nekk jigéen ñi ñoo ñu man ba tax na kon nanu yëkkati niveau bi xam-xam bi ñu wuti ko ak fu ñu ko mën a wutee ji te taxaw temm ci defendre lislaam parce que amuñ lu lislaam li tax ñu indi ñu fii bàyyi ñu fi ñu nag soxna Zaydam ñoo ñëwandoo woon mais moom jiitu ji na incha allah rek léegi ñu fekki ko kon bokkoon nañu dikk ñun desandi nañ fi li tax ñu indi ñu fi te bàyyi ñu fi nañ ko xam te consacré wu ci mooy taxawu l'islam défendre l'islam toppatoo l'islam suñ demee ba agression bi tey yegg ci bu ñuy inauguré fi mu nekk nii jàkka dañuy teg ak sabar ak di ndaw rabbin ma ni nañu séentu ci mais c'est extrêmement grave nañu séentu nii léegi danañ dema dema dem ba maanaam Pam Ndiaye coppet wala keneen la ñuy teg ci minbar yi fi mu nekk nii ñu kenn Actuellement, il y a des mosquées mixtes actuellement, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, des mosquées mixtes. góor ak jigéen ñooy bokk sàppe y a des imams actuellement yoo xam ne ay jigéen lañu y a des imams góor jigéen homosexuel mën naa ci wax ñu baree baree baree bare actuellement te mi ngi ci suñu réew mii ci la jëm si actuellement moo tax taxawaay bi am na lu mu laaj nañu ko bàyyi xel te xam ni sàmm valeur yi défendre valeurs yi moo gën ay milliards moo gën àdduna li ci biiram lii mooy message bi nga xam ni collectif bi bëggoon nañ ko joxe ñoo ngi dellu di leen sant di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen séentu nag taxawaay bi ndax jàpp nañ ni fu góor taxaw benn taxawaay walla fukki góor benn jigéen mën na koo wecci moo ñu loolu yàllaa ko def kon ñoo ngi leen di séentu ci taxawaay bi ak sunu wet ngir ñu yëkkate raayab lislaam wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu di leen jaajëfal tamit di jiital ci nuyoo bi rek Oustaz Makhtar Sarr wax dëgg yàlla xëy na xol yi lott na mais yaa xam ne bu ñu joxee ndigal mënuñoo bañ a wax di ko nuyu di ko ziyaar di nuyu Maam Fatou mi nga xam ne moo jiite soppe yi di nuyu Oustaz Alpha di nuyu mboolem Oustaz bu fi toog di nuyu mboolem soppe yëpp kàddu yi nag du mën a gudd kàddu yi sant la rek ak ngërëm yu ñu yaaxa di yónni di nuyu ñëpp yaayu maam faatu mboolem soppe yi ak xarit yi bu ñu xasee lim rek dañuy dugg ci gaal goo xam ne dootuñ ci mun génn mais mboolem kuy soppe ak kuy xarit te Zeynab indi la fi tey ñu ngi lay nuyu bu baax maam Fatou li ñu waxoon rek li Oustaz Alpha wax rek la ñuy feddaliwaat ñun ñu ngi sa ginnaaw naka Zeynab bu defee woon noonu lañ koy fas yéenee defee ba keroog ñu koy fekki. yàlla na yéex loo wax loolu la ñu wax loo waxul waxuñu ko ñu ngi sa ginnaaw di rafetlu nag seen taxawaay ba Zeynabu génnee àdduna ba léegi rëkkalewu leen benn yoon yéen a ngi avancé rek si xalaat ci seen doole si lépp daara ja tey lépp lu fa bu doon def benn boo demee fukkam nga fay fekk te yéen yéen a tax loolu am waaye duñu fàtte mukk waa rajo Dunia wax dëgg yàlla bi bu génnee àdduna ba léegi dañuy taxawu daara ji taxawu njabootu Zeynab te loolu bu amee ki ñu koy gërëme mooy Cheikh Tidiane bi tey almudir ndax lu rafet moom la bu ñu xamee Zeynab tey moom moo tax ñu xam ko ndax rajo Dunia fa la ñëpp xamee Zeynab te moo ko fa indi moo ko fa yaatal lépp mu ngi koy dox ñi ngi koy yëg yàlla na ko yàlla fay kon daal kàddu yi du mën a gudd ndax xam ngeen ni xol yi neexul nekkul ni dañoo gërëmul dogaru borom bi subhanahu wa taala ci li mu teg ci Zeynab ak ñu koo gërëm ci li mu dogal gërëm nañ dogal bi bu baax waaye dañuy wax rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon al aynu tadma wal qalbu tahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna azza wa jal kon lii rek lañuy wax léegi lii rek la ñuy wax euh, di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm defal ñu ko di leen fàttali kàddu bu am solo bu Zeynab waxoon keroog bi ñu toogee fii yaakaar naa loolu moo ñu jooyloo ñun ñëpp keroog bu mu toogee nee na ñun ñëpp ñu ngi toog maam Alpha Camara fekke woon na ko ren fekkewu ko bii di ñëw xaw ma man la xaw ma kan la ndekete moom lay doon kon nañu bàyyi xel ci kàddu googu xam ni bis bu nekk mën naa nekk kenn si ñun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alekul xutabul jali kon nag euh, lépp loo gis rek day jeex te yàlla dogal na génn na àdduna waaye génnul ci xol yi génnoon ci xol yi xol yaa ngi koy di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala kon yaa xadi foto ngoog sa foto dooma ngoog say eh, say doom ñoo la koy jox alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala eh, seen mbokk ci yàlla Muaz Demba Ciss bokk ci jamiyatu ansaaru diin mooy kuréel gi lëkkaloo ànd di jàppale eh, soxna soxna Zeynab Fall Sarr rahmatullahi alayha ñoo ñëwoon fii ci parcelle unité 18 ci njiital Mame faatu Mbeng mi nga xamante ne moo jiitee soppe yi kon ko kenn la ci ñoom kenn euh, ki nga xamante ni si moo nekk euh, sama wet te tama ndejoor muy Arona ki nekk sama càmmoñ muy Chouaib incha allah. sababu daje bi tey. waaw li sabab daje bi tey. Euh, borom bi tabaaraka taala dafa dogal kiñ doon àndal muy soxna Zeynab Fall moom bi nga xamante ni moo taxoon mbootaay gi sosu euh, dafa def yàlla dafa def mu làqu ci 2018 bi li nag mooy première daje bi nga xamante ni moom lañ daje gannaawam li ko sabab nag mooy dañoo bëgg am mbokk yi amaat yëg-yëg ci li taxoon ñu doon ànd ak Zeynab loola mu ngi fi ba léegi muy borom bi tabaaraka wa taala donte Zeynab nekkatu fi comme néewtu fi nag ñun ñëpp war nañoo ànd nekk benn jàppalante lan doon jàppalee Zeynab yéen a ban amoon ci moom nañ ko mottali ci daara ji mottali ko ci njabootam ndax borom bi tabaaraka wa moo ni wa tawakkal xay alxayi alladi laa yamut booy wéeru wéerul ci borom bi nga xamante ne mooy dund te du dee keneen koy wéeru dana faatu nit nag am nañu sabab bu leen di boole sabab boobu nag bu fa néewatu la taxoon sabab boobu am mu ngi fi mooy borom bi tabaaraka wa taala kon bis bi ak dajeem mooy yëpp ñun ñu àndoon ak Zeynab ñu continué waat lég euh, mottali liggéey bi gannaawam ndax euh, kóllëre gannaaw lay féete loolu moo nekk sababu daja bi tey jii ci parcelle gii nii incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw man ma Daawur président organisateur Ansaarud-Din waaw. lan moo sabab daja tey bi. Ah, sa daja tey li ko sabab daal maanaam daal. mooy mot li coloré waaw koo xam ne yàlla daf ñu ko boole lool nag moom waaw mu dem bàyyi ñu fi waaw te yàgg-yàgg ñun ñoo koy fekk ji te adduna mënul neexa a naqari ba mu fekk si waat ñu waaw loolu daal moo sabab dajo tay bi ndax jot nga def benn seetlu ci bi mu fi nekkee organisation bi ak bi mu fi jógee ah, waaw waaw am na lu ma ci seetlu waaw wax dëgg yàlla jëmm ji moom xam nañ ne manqué na fi moom waaye nag xam nañu moom ci suñu xol lañ ko suul wax dëgg yàlla jëm ji manqué dafa moom ma wax dëgg yàlla ay gor lañu jàpp nañ te kenn bàyyiwu ci nañ doon ñëwee noonu la ñëwee waat tey waaw xëy na rek samedi bee xat rek waaye nag wax dëgg yàlla daal nañ doon ñëwee noonu la ñëwee tey am kenn koy gërëm tey seppi ko wala ñëpp nga bëgg a boole ndoo gërëm su may gërëm moom ñëpp laay gërëm waaw parce que waaye nag booy boo tuddee kenn rek dina mel ne tudd nga ñëpp waaw parce que boo jàppal kii kii boo dégg rek jàppal diw la waaw maanaam su ma nee présidente bi suñu Abiram moom Fatou Mbengue rek su ma ko gërëmee rek mel na ni gërëm naa ñëpp waaw parce que taxaw na ci moom itam taxawaay bu rafet waaw parce que itam chaque jour ma daan dégg mu naan ma bëgguma organisation boo xam ne da am benn faay te wax dëgg yàlla day ah man de yaakaar naa ne organisation gisuma ci benn faay waaw wax dëgg yàlla lépp daal tegu na ci yoon waaw alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi soppey xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel itam ci xew-xew bi di naal ki tax di ñaanal ki tax ñu daje yal na yàlla yeesal jéggalam ak yërmandem ci moom yal na yàlla def aljanna mooy wàccuwaayam ak sawukaayam euh, yëg-yëg bi moom benn yëg-yëg la te mooy xel yëpp delloowaat ci yàlla loolu moo tax ànd ci yàlla rek wóor bépp ànd bu dul yàlla rek yàgg-yàgg rek ci naxsaay la jëm waaye bii ba bañ koy fekki jamono ju ne xel yi day delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala ngir xamante bi ñu xamante woon ak moom damay faral di jox misaal ci xale yi ma ne leen bu ngeen gisee ndox aslan du lakke waaye bu demee bay lakke parce que dafa am lu mu jonjool loo xam ne moo koy walla loolu dëgg nañ ci biir waxtaan bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne al maru ala diini xalilihi fal yanzur ahadukum man yu xaalil képp kenn ku ne rek mu ngi ci sa doxalinu ka ngay àndal ngay xaritoon bu baaxee nga baax waaye bu safaanooy nga safaan kon kii lu ñu boole woon ak moom mooy mbaax lu ñu boole woon ak moom mooy alquran lu ñu boole woon ak moom mooy diine to loolu tax na dañu fi teew ñëpp diine leen fi indi kon loolu la ñuy ñaan ñoom ñëpp yàlla sàmmal leen boppam ñu yàgg di ko taxawee mais yàgg jàppaloo ak jàppante ngir yàlla ngir loolu nga xam ne moom la soxna si naaloon te jotu koo yeggali ñoom ñu mën ko yeggali ci ginnaawam be def lu ëpp la nga xam ne la yaakaaroon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu